Abdoulaye Bob Yal Médina fi yow. jërëjëf euh, Mekhemen El Hadji Mouhamadou Biteye. yegsi nañu ci li gën a fës ci bopp yéenekaay yu ñu xëyandoo tey ji dañ koy tàmbalee ak Walfadjri Quotidien. mangoog yéenekaay yu bari sax xëyandoo tey wutali assemblée nationale euh, foofee nag Walfadjri Quotidien jiitu na fa di ñu li nga xamante ne mun a indi gatsa gatsa maanaam jaamarloo gu métti métti war naa mun a dox ci diggante euh, nguur geek ku jeeg politique bi yéenekaay bi ne la ko waral mooy nguur gu bees bi Bassirou Diomaye Faye yéene mooy tas tasar au conseil des collectivités territoriales ak conseil économique et sociale et environnementale loole nag la majorité ba ne ca euh, assemblée muy waa benn Bokk Yaakaar ne duñ ca dal ba tax na ci plénière yi suba incha allah dañ ko waxtaane buggan gi dañuy jàpp ne nguur gi euh, gi fi ne dafa jaawatle priorité yi am na feneen foo xam ñu ngi ciy soxla nguur gi euh, ci jafe-jafe askan wi ñu bëri nelawtuñu ba yandoor ndax ñàkkum kaaraange fat bakkan yi bari lool mbëkk maa ngi nii mbënn maa ngi yott Sénégal ak yeneen ak yeneen fa la nguur gi waroon a jublu fa lañ ko doon xaare defuñu ko muy tas ay kuréel yoo xamante ne ci jamono ji mënoon nañu euh, jëm ba ca kanam. le quotidien yéen kaay. le quotidien na convocation section extraordinaire ci assemblée nationale bokk na ci euh, jaay doole gañu ne moom la njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye wane ci assemblée nationale bureau assemblée sax ëllëg incha allah lañ leen wóolu bokk na ci euh, njiitu réew mi sàkkuñu tas lii di au conseil des collectivités territoriales conseil économique et social et environnemental yéen amal jàngat ak taxaw seetlu eh, ci doxalinu nguurug Bassirou Diomaye Faye mi jëm ci bëgg a tas assemblée nationale. lu lettre bi bind tey le mandat. maanaam le mandat mu ngi ñuy dégtal eh, dissolution eh, tas au conseil des collectivités territoriales ak conseil économique et social et environnemental ay député yu bennoo laaj daal di sampu ndax dañ ko jëfeem déet mu ngi ci yéene kaa bi di le mandat ci xëtam bu njëkk. las yéene kaay. las ne assemblée gàngoog bennoo bokk yaakaar fippu nañu ci kaw njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye bokk na ci ne duñu nangu mukk leen jaay doole ku leen noot jalgati eh, li nga xamante ne mooy doxalinu assemblée nationale tas eh, yooyu le kuréel yama lim léegi eh, daanaka ànduñ ci ci jamono ji yéen cabinet lu bëre bari nag mun naa nuyoo ëllëg ca assemblée nationale. l'info foo l'info ne moo xam nga jël o conseil des collectivité territoriales ak conseil économique et social et environnemental ñaari kuréel yi le daanaka ñoom ñooy kenn bëggun ci réew mi ñu bëri jotuñu leen a sopp ndax dañoo gis ne daanaka seen taxawaay demeewul noonu yéen cabinet l'info nag jox na kàddu gi askan wi ñu ngi ci joxe seen xalaat mu ngi ci euh, l'info euh, critique yéene kaay euh, critique Bougane Gueye Dany juróom ñaar juróom benn ci ñañ ca jot a tudd euh, jot nañ leen a déglu démb ca tribunal bu Pikine waaye nag am nañu retour de parquet jot nañ leen a delloo euh, fale ca commissariat central waaye nag kon kaleen juróom ñaareel di Fallou Diop mujjee nañ ko teg loxo mu ngi ci yéenekaay bi euh, nga xamante ne mooy turbine Le Soleil yéenekaay Le Soleil mu ngi ñuy dégtal lu aju ci ndox mi ndox mu sell askan wi mun ko jotee fépp ci réew mi bokk na ci fanweeri dogal yoo xamante ne tukkee na ci ndaje waxtaan googe premier ministre Ousmane Sonko xamle ne fi financement gàncax xayma ah, toll na ci eh, junni milliards yu toftal juróom-benn téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaar ngir fexe ba askan wi mun a am ndox mu sell te doy mu ngi ci yéene kaay bi di le soleil. 24 yéene kaay. lu aju ci wàllu transport aérien bokk na ci euh, ndax euh, El Malick Ndiaye dina mun a euh, doon ki sauvé Air Sénégal ak jafe-jafe ya muy dund ci jamono ji yéene kaay bi di Dakar Times ne Mimi Touré am na ndombol tànk gu bees tàkkal nañ ko ko moom lañu ñu tàbb bees bu président Bassirou Diomaye fay mu ngi ci yéene kaay bi di 24 heures. ñu ñëw ci yor-yor yéene yor bi mu ngi ñuy dégtal agence sénégalaise de la couverture sanitaire universelle bokk na ci euh, koppar yañ ko xaymal te mu ëpp euh, téeméeri euh, million yéene kaay bi dikkaat na ci ci googu agence ak na muy doxee mu ngi ci yor-yor bi. enquête yi ni kaay enquête xëy duñu enquêtal bi tey loo xamante ne daanaka fës na lool ci askan wi koo gis mu ngi ngàbb téléphone sëgg ci téléphone am dina jafe lool ngay wax ak moom mu tontu la yéen a cabinet fu technologie toll ak euh, téléphone yi daanaka njat nañu askan wi ndax euh, soxla yi euh, demeetulu noonu kenn ku nekk daal sa téléphone mooy sa soxla yéen a cabinet enquête nag moo ci xëy defal enquête gu yaatu fu téléphone toll ak doomu aadama yi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 688 25 05 wala si 347 email jot réponse bu gaaw te si ikfa online arobas gmail com ikfa daal yéex naa ñëw.